jërëjëf mbokki amateuru lamb yi jërëjëf mbokki seetaan wasaare lamb nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee stade Diop Iba Mar stade bi nga xam ne képp kuy amateuru lamb namm nga ko bëgg nga ko naam ndax bis la boo xamante ni événement bu ne yàgg na fay xew Balla Gaye Issa Pouye ndaanaane Eumeu Sène su lay dob ku ne bëre na ci stade bi suñu papa Moustapha Gueye ñëpp bëre ci stade bi tey ki ñu fi woo mooy jamono event jamono event boole ñaari xale yoo xamante ne ay combat espoir la xale yi ay ndaanaan lañ xale la ñoo xamante ni kenn ki bu ñu nee Youssou Ndour doomu père Balla Gaye Youssou Ndour mi nga xamante moo waree géejawaay ñu jël ko boole ko Bébé Diouldé ndaanaan bi nga xamante bi mu dugg see ci làmb ba léegi mu ngi def ay performance di jëm ci kaw dañu tardé mais dañuy dugg ci biir wala leen lépp loo xamante xew na fi ci ambiance ci cosaan xool Youssou Ndour xool Bébé Diouldé ak ndeysaan mu ngi noonu xale la boo xamante ni làmb bi mu ci duggee ba léegi mu ngi def ay jéego moom Youssou Ndour bu ñu ne ko kuy sa bàyyi mu ne Balla Gaye numéro ñu ne ko déedéet kooku xamuñu ko de mu ne kooku moo jël Elton def ko li mu doon kooku moo jël Balla Gaye 2 ànd ak moom ca dara ba dul dara def ko roi des arènes sama baay jooju tey géejowaay lépp lu mu mën a mel moom moo ko fa def baayam nekk na mbër moo xamante ne école itam lutte am ndaysaan daanaan yu bari génn nañ fa moom Youssou Ndour gis ngeen ko tey ni mu ñëwee wane na ni doomu mbër ma wane na ni cosaan da koy dund waaye wane na ne lamb da koy dund dafay bëggal lamb xoolal la mu téye ci loxo bi tey su sax bàyyi dellu si waatoon doo defaraat sa toogaay ndax lan jàmbaar gi fulla gi fut ak fulla ak fayda ginnaaw loolu dañ koy bàyyi rek mu wuyu téléphone ndax débat déeb ci lamb la bokk su wuyoo ba pare su ko defee ñu waxtaan yiw Youssou ndeysaan tàggu teel yiw nuy naa maa lay fay bis bi la laaj bis bi dal teey jël ma moom yaa ñaanu yàlla may ma c'est la première fois bi sa baay génnee àdduna ba léegi ngay bëre tey boo boo ñëwee stade gisoo sa papa gisoo lim la daan taxawaay ban taxawaay ngay mën a yor. waaw sant yàlla rek sant yàlla rek di ñaan yàlla rek yàlla may ma ndam waaw yàlla ma yor ndam damaa koy ñaan may ma ndam yàlla soxorul waaw. yaa ngi Bébé Diouldé tey lan mooy combat bi xeex wala bëre. balaa yoo xeex xeex balaa yoo bëre ñu bëre sans dépense moom rek waaw. Bébé Diouldé ngi noonu moo war a bëre Youssou ma ngay suuru xaw ma cuuraayu keccax la xaw nemmali la xaw ma lan waaye bii du nemmali de bii déedéet du cuuraayu keccax bi gaa yi di laal ay nijaay tëjal bunt bi cuuraay yooyu bii du cuuraay mbër nuy naa la. ñu lay noo waajee bis waa ànd ak suñuy rek. waaw bés bi li mu laaj ñu ngi dal ak tey xam li ñu war a def baax a baax dina yàlla suñu borom may ñu dam rek. Youssou Ndour dama ko laaj léegi mu ne ma tey yow sans dépend ci yow rek xeex wala bëre nee na loo ci bëgg rek dala ciy yàlla ma yàlla may ndam ci kawam. ci xeex wala bëre. ci lépp nu ma ko mayee baax na yàlla yàlla may ndam ci kawam rek. loo ci loo ci am jël. ndaw rek laa ñaan yàlla yàlla ma ko yàlla may. mais daal le moral est bon. waaw alhamdulilah sant baax a baax waaw waaw. seex yaa ngi noonu waaye yéen fu ngeen ne. doom day ñoo ngi nii. ñoom ñooy ñaari seex yoo xam ne bu ñu bëree kenn ki day ngemb des fois sax kenn ki sonn kenn ki day bëre. waaw wasaare waaw tey moom bébé xewle suñu doomu ndey Youssou Ndour. billaay wallaay fi mu daal baaxut dañoo pare te ci kattanu yàlla dinga nga gis xam ne dañoo pare dañu koy daan ci kattanu yàlla pare nu ci lépp. billaay wallaay dañoo pare ci yëpp ñu ngi lay kontaane gis nañ li ngay joob yow ci wasaare vraiment sa liggéey rafet na ñu ngi lay suivre bu baax a baax baax yàlla yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal liggéey bi nice na doom de. jiili ki sol dal yu xat ak ki sol dal yu ëpp bu ñu awee ci yoon di dem kan mooy bëgg a njëkk a egg. borom dal yu xat mooy gaaw a njëkk ak. ndax dal yi day jàpp waaw ñun danoo sol dal yu xat danoo bëgg a dem suñu yoon. Ah. maa la wax loolu. li ma la wax ñu ngi jàppale sunu doomu day Bébé Diouldé mais billaay walaay talaay dinañ gis lu leer nañ ci kanam. ci bëre ci xeex yow itam ñun ay bawol bawol la ñu te taw na li tax Youssou Ndour amul sens dafa taw bu tawee ñun bawol bawol dañuy béy deetul feet ci bawol ñun bu tawee dañuy béy te kii du nu xañ ci ñu jiwu li ñu war a jiyee ji gerte dëkk ba Youssou Ndour moo ñu koy xañ pareegut. pareegut ñun li ci rek mooy li ma la wax rek danoo nekkoon ci roog xam nga dañoo amoon ay ndaw yu ñu téye mais pour les l'instant moom. wax dëgg fa yàlla commencé waat nañ entraînement yi mooy loolu. ci kanam Ablaye Ndiaye nee na ñaari avance ma ne ko foog nga génne ay millions yu bëri. dafa bëgg ñun ñaar ñu bërëndoo man de xaw ma kan ku ma am moom dinaa tasaare sa yàq bakkan balaa dara xew moom ma yàq sa bakkan yi ba mu wax saa maa la wax loolu du caaxaan. maa leen ma. noo nii. jëlal ma tànk bi maa tànk bi ban la ci. gauche wala droite. sëñ bi waaye xolo. lii la xolo. ndeysaan li la dal kenn yéene wu. muy nii waa gis nga mais sant yàlla dogal la rek. mënuñu si dara. ñoo ko doon bëgg bëri fu mais dogal la rek. dañuy sant yàlla rek. mais Assane woo naa ko nee naa ko jàppalaa ma del mu bëri pare na pour bëre. boo déggee ñi nga xamante ne ñu ngi ci ginnaaw làmb bu mbër gaañoo comme li la dal ñu ne non daa tappale wala daa daw combat bi lan nga leen di wax. da leen dalul rek moo tax mais mbër bu préparé combat daanaka nga préparé lamb bu mu ñëw des huit jours nga naan da nga dem di tabax sa bopp loolu nax sa bopp la rek loolu dem ñu dal moo gën sax mais ñun loolu nekk ñu su yooyu dañoo gaañu entraînement lañ gaañoo. promoteur bi loo koy wax ak affiche bi ñu koy xaar général Malika fils de Balla da ngay continuer di waajal général Malika wala combat boobu dañuy mujjee. moom laay bëreel bëreel ma ak keneen moom laay bëreel si boppam général laay bëreel même dégg naa ko mu wax nee na bëreel man ma moom lay bëreel. day force doole ma. par force la day bëre. yow laa ko wax par force lay bëre. ah Assane na ko mu joxoon ñu la 4 juillet mu dugg ci 4 juillet ñu bëre ko. ah barki sëñ Bamba. wóor na yàlla. tamit bu TV ndax moom doomu Loora la. Ndeysaan ndax li wolof naan foo dem fekk fa mbaax loo am ci mbaax foofu nga koy yóbbu mën nañoo xastante naam mën nañoo xuloo mën nañoo xeex waaye mënuñoo xastante ndax ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ ndeysaan mu ngi noonu avertir nañ laaj na laaj na doomu looro laaj na këli 44 arbitre bi sifflé na doomu looro mu ngi noonu jiital càmmoñ këli jiital tànk ndijoor looro dox na ci koom ma ngay xeex ma ngay sànni daw na jëli tànk ba doomu looro lu mu nar këli ngay fayu këli taxawal xeex moom bul ko wan dama laa ragal daw na jël na ko jàppante na ñoom ñaar uppercut déet waay ma ngay dóor doomu ngi dóor ay uppercut ci suuf dóoraat na ko protège daa ba baadu yàbbeeku doomu fi mu jàpp loxo bi baax na mu ngi koy manœuvrer ndeysaan lu nar a xew jëli na tànk ba doon na ko uppercut ña ngay xeex ndeysaan doomu Lora. jëli a këli fa ko takk baax na lu mu nar daan na ko doomu looro daan na waa looro kontaan nañ Lamine xol bi na ndax kii looro la dëkk waaye dem fekk fa mbaax boo amee mbaax foofu nga ko yóbbu Abdoulaye am nañ ndam lu Abdoulaye ndeysaan Abdoulaye Ndiaye ndeysaan ah jili borom Lamine bi dal na waaw Mamadou Diouf borom Lamine bi dal na Lamine xol bi sedd Abdoulaye Ndiaye looro sama la ndeysaan mbëru loola ba daan na mbëru loola ba daan na ah lii mooy. doomu loola. ah doomu loola gisal. ñii ñëpp. eh mais loola mi mobilisé na ah. ñii fan lañ jugee. ñii fuñ jugee. loola lañ jugee ñoom ñëpp loola loola. ñii ñu nekk parcelle. ginnaaw raay Kër Masar ñoo ko def dem. kenn ëpp la moom loola gis nga leen. nan ma jox ci booy bu bëre booy bi day daw. ñaari yow su baaxee dëggal boobu ma dumoo. daanoo ci ni nga bëree. ah dama koo jàpp taw bi ma la war a woo. parce que sëñ Bamba kii moo kii moo daan man dawar ma dara. walaay taalaay. billahi kii moo ma dara. non baax na baax na baax na ñoo fa. ginnaaw yàlla kii moo tax ma daan. billahi walaay taalaay ma koy sant. mais ñëwoon ma ni nga bëree. kii lépp kii la billahi walaay taalaay wala wala. billahi laaj ko laaj ko damaa amee waroon moo tax ma bëri. parce que sëñ Bamba billahi walaay taalaay.

te bu ko dëbbee sol mu jeex baa ma duuma ko sax mu daal lépp laa indi tey zil kër moo ñu yor nag du ñu ragal. li nga def rang muy gaaw laa la wax. ah daal nga xoolal lii décoru làmb la ndaysaan décoru. arbitre bi woo ñaari mbër ñu ngi noonu dox ci diggante Bulim Junior ak Gose ay arbitre wàccal lii lu doon Bulim Junior ak Gose. Gossé nag moo leen féetee gauche Blum Junior moo leen féetee droit temps bi da koy maye Blum Junior ak Gossé ndeysaan ñu ngi noonu Blum Junior ak Gossé ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ñu ngi xoolante ci bët ñaari mbër yi ñu ngi noonu leewtoo ku ne yoreel na ma de xeex nañ eh Gossé door na ah. Gossé ngi door Blum fay daw na jëli ko jàppante ne ñoom ñaar Boulim Junior Gossé mu ngi jàppante ñoom ñaar ku ci nekk mu ngi jéem a sëq ci geño ndeysaan Boulim Junior ca xabal nañ ko bañ na Gossé daw na jëli ko ñu ngay dóorante béet ko ci suuf bëre nañ yegg suuf jugaat ndeysaan Boulim Junior ak Gossé ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu doon na béet ko ci suuf ndaysaan doon na percute ndaysaan Bulum Junior ak Gose ndaysaan Bulum Junior ak Gose ndaysaan Bulum Junior jege na saaku yi de benn tànk bi jéggi na saaku yi waaye saaku du fekk ci kenn yéen koy fekk saaku fuñ ko réservé ci làmb bu ko mbër fekk jee rek am na lu xew door na béykit Mbouloum Junior a ngi dóor mu ngi dóor boose ma ngay bëre Mbouloum di nga am lu la daan na la gàccey dóor ndamal daan faj na ko da doon xeex moom mu pare pour daan la da ngaa jël décision xeex moom mu jël décision bëre boose ngi noonu Adama taxawal foofu dina baax ci yow Adama xale daan na wala kàggu laa àndal sama xel a ne ci Adama ma ngay jooy kàggu loolu ma tuuti ci ni nga bëri ndeysaan ndeysaan ngi noonu moo daw junior ndeysaan Petit na wax yaa ngi caméra ma tuuti ci ni nga bëree bulum ci bulum dafa maa xeeb barke alxuraan karim tax xamul ni ndaanaan lay bëree barke Seydina Mouhamed combat bi dama cee dégg lu nekk wa taala mu jëlee sa waa koy combat dafa jëlee sa waa xoolal lii xoolal lii lii ñu Eumeu Sène Faye barke alxuraanu karim yow nga ñëw pour bëre alxuraan moo kii moom a tere kii Modou Lô Modou Lô bu la xeexam ma bëre ak moom barke alxuraan karim mais ak maa mën a xeex mais damaa xam ne laamu ji du laamu xeex laamu bëre la barke alxuraanu karim moo tax ma bëre ak moom koo jëm car fora car fora moom eh, daan barke dinaa Muhammad lu ma ngi noonu waa xoolal Youssou Ndour kàggu tourné la xoolal Youssou Ndour wala du moom du Youssou Ndour de kii ku mu doon layu la teg toog ci Ndiaga Thiam Cobra a koy indi lamba gi Ndiaga Thiam waaw doon ci xeetu mystique lii doon Ali béjjënu lan la mystique yi bëri na ci xale yi waa lii doon

waa maa ngi sant yàlla bu baax man Thié laa tudd. Thié waaw. man moo la dugal ci lii. waaw ñun boo xoolee ñun Sénégal dañoo jooy arène nationale ba am kon tey jii bu ñu ko amee wël bi du ko yàq loolu yaakaar naa ne du lu rafet quoi. seen xalaat yu mbëri ndaw yi yéen a koy moo taxit yéen yéen ci mbëri ndaw yi lii rek wane na firnde bi quoi parce que lii wane na du mbëri a ko yàq am na te ñun ànduñu si comprendre te lii buñ soñtee mu dakk ba arène ñoo ko gisee ma dóor non à la ñu yàq ñoo moom ça veut dire que li ñuy yàq métti nañu quoi du suñu coob du suñu bu yem fi ah, message boobu laay lancé képp koo yaa ñëw seetaan lamb arène nationale suñu alal la ñun lañ ko defaral comprendre nga war ñoo mën a dem di jéegaane fenn lamb métti woon na quoi stade bu ñu bëgg a tëgg ñun du fi amee mais léegi tey yàlla dogal ñu am arène nationale kon war nañu mën a rafetal quoi buñ buñ yokkul taar bi war ñu ko mën a yàq comprendre di ñaan di sa mbokk mbokk mbëri ñu ñax seen waaw mbër yóbbu quoi parce que seen bëri na fa la de dara xewut waaw démb Sa Thiès bëri naa Moussa dara xewul mais yéen saa yu ngeen bëree dara xewul waaw parfaitement raison parce que tey jii nii kon mbëri ndaw yi maa woo ci loolu ku ci nekk nañ ñaax supporter am comprendre nga mu am nu mu doxalee ba bu ñëwee buñ defaroon bu ñaax comprendre nga te waroon nañ bu ñëwee arène nationale buñ ndox nga buñ ko naanee dañ ko bu géee buñ génnee sànni ko si poubelle bi waxati rawatina di yàq doon rafetut waaw loolu ginnaaw buñ jaara ci loolu nag dama may ma sant sama gaay maa dal maa ngi sant sama koñ yaa ngi dégg waa mafia pune bi xam nga waa Baxtaar Gunaas Abu Kafake Ibrahima sant sama waa dëkk comprendre nga di sant képp koo xamante ni yaa ngi nekk sama ginnaaw di leen wax naan waaj leen téye mi ngi waajal loo xamante ni bu ñëwee waa xam ñëpp gis seen boobu man ñaamoon Casamance bu géej waay laa ne. ñaamoon Casamance téye bàyyi leen ko xel xale la boo xamante ne bëgg naa ñëw ci làmb te lii dafa rafet xale bu ndaw jël t-shirtam def ci ay moyens boppam def non à la euh, kon doomu réew mi rawatina yéen ñi nga xam ne yéen ay mbëru làmb ci wanati exemple saa su ne mbër bu ndaw di wane exemple. yaay njiitu Bawol production. Assane tey ñu ñëw fekk la ci bis bi. ngay ngay koo xamante ne waxuma la promoteuru làmb bi nga doon waaye da dund làmb tey bi nga ñëwee dugg ci stade Jom Iba Mar gis stade bi nu mu mel ñu delloo si waat làmb li mu moom ban yëg-yëg nga ci am. du nuyu képp koo xam ne yaay yaa ngi suivre internet bi ah nuyu waa diaspora bi yëpp. bi ma ñëwaatee Iba Mar damaa bëgg damaa kontaan xam na fii dama fee fii dama dama fee man lu bëri fii dafa neex làmb fii dafa am sëleur boo xam ne boo tëggee làmb da ngay gis sa bopp ma tax dimanche ku ñëw fii ci kàttanu yàlla di nga fi gis làmb ju doy waar mbay guy gi mam balla gàkku de Petit Niang gàkku de Boy Dakar Petit Niang Ziza calcio parisien mais ku ñëw foofu dimanche ci kàttanu yàlla fii bàyyi ji li non di nga fi gis lamb ji yéeme si kàttanu li ma la bëgg a laaj du ma dugg ci ay mbay guy gi. maam Balla mais calcio parisien parisien foo jëlee calcio. non xam nga lamb man damay da damay ndoxtu lamb dama koy wër damay xool li amateur yi di wër li leen neex ma si dox. te à loolu am na leneen lu may wàcc biir làmb ji. wallahi al azim loo xam ne képp ku ñëw si làmb ji bëgg lu lamb ji laaj dimanche dinaa ko def si kàttanu yàlla. mais l'homme des grands événements moom kenn du ci génnee Baol Production. non non bi dimanche la incha allah dinaa ci def lu yéeme si kàttanu yàlla jox ñëpp rendez-vous dimanche fii incha allah. mbay guy gi mbay guy gi Dakar gàkku de jeex na la règlement bi nangu ak mu bañ. règlement bi nee su ma sifflee yéen ñaari mbëri atte su ma sifflee boole leen xeex leen arbitre bi sifle na sifle boobu moo leen boole ñoom ñaari mbër yi daa bu Texas ak sang daa moo la féetee joor sang moo la féetee càmmoñ ñoom ñaari xale yi ñu ngi noonu ndeysaan xeex nañ bëre nañ première dix minutes yi jeex na dellu si nañ seen deuxième minute. Ndeysaan mu ngi noonu deuxième wala deuxième mi-temps bi bokk Ndeysaan ñu ngi noonu Ndeysaan daa bu Texas ak sang ñu ngi xoolante ci bët ñoom ñaar daa ak sang lu nar lu nar a xew daa ak sang Ndeysaan pare baa ngi noonu ña ngay dem ñoom ñaar. ndeysaan ñoom ñaar ngi noonu sang ak daabu Texas ndeysaan dóor na sang dóor na daaw ngi natt rek. ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am na avertissement. waaw lamb jee laaj loolu combat bi dafa yàgg. yéen a ngi bëre mais règlement leen war a dàqale. muy daa wala muy sang. eh daa dóor na. Eh, daa dóor na léegi daa bu Texas dóor na ndeysaan fayu daa ak sang ñoom ñaar ku ci nekk daa bëgg a dóor sa morom uppercut ku nekk nga koy togg mu baña ñor ndeysaan daa bu Texas ak sang ñaari xale yaa ngi noonu daa bu Texas ak sang ndeysaan ñu ngi noonu daa bu Texas ak sang ndeysaan daa bu Texas ak sang ndeysaan daa bu Texas jàpp na ndeysaan sang bañ na waaye turbine bee boo yaa ngay xeex xeex bu am solo kàggu xale yee ci kaw kàggu jëlal ma sàccal ma ko tuuti jumal ma xale bi xale bi doon na hypercure borom lu orange bi ndeysaan kàggu gis nga xale baa koy door eh tàqale nañ leen gars yi ci làmb ji <laughs> waaye làmb ngi ndeysaan daamu Texas ak sang door na hypercure fàqan na ko daa fàqan na sang mu bañ. ndeysaan supporteur yi daa sang yi mbëri dañuy bëre ba mu yàgg ñu xoolante rek ku ne sol sa ay xale yu ndaw di dóor iberki dóorante dóorante dóorante ba tàqali ko lii mooy làmb ndeysaan daa bu Texas ak sang ndeysaan ñoom ñaara ngi noonu daa bu Texas ak sang ñoom ñaar kenn jàppul kenn ndaysaan jël na sanga gi dóor ci suuf daa fi mu jàpp baax na fi mu jàpp sang baax na daa ngi gën a jàpp waaye ngemb li daa am problème daa am problème fu muy jàpp ndaysaan ndeysaan daa bu Texas ak sang ñu ngi noonu temps day waaj jeex ñu ànd ak daa da ko buux ko mu génn saako yi su ko defee li nga bëgg ci làmb ji nga am ko arbitre bi àtte na mbaam machine yi dina am sang abi bi sifflé na supporters yi yuuxu nañ yaa arbitre bi non non da nga leen a war a avertir ñoom ñaar yëpp sang ak daabu Texas sang jiital tànk ndijoor daa jiital tànk ndijoor ndeysaan ndeysaan xale yaa ngi noonu ndaysaan gaa yaa ngi noonu ndaysaan place dox ci diggante Daabu Texas ndaysaan ak Texas ak sang ñu ngi noonu ndaa bu Texas ak sang na tanda arbitre àtte na kaay leen avertissement avertissement ndaysaan ñoom ñaar arbitre avertir na ku nekk ndaysaan daa bu Texas ak sang upekit quatre appuis am na wala déet amul daa rëpp na sang doon ko jéem a accompagner mu bañ ndeysaan ñu ngay dóore upekit xale yi vraiment ñu ngi bëre bëre bi ah xale yi ñu ngi def lu ñu mën ndeysaan sang ak daa bu Texas noonu ñoom ñaar daa bu Texas ak sang ndaysaan ñu ngi noonu dóor na bëkk ci suuf mu ngi dóor ndaysaan mu ngi dóor mu ngi dóor ay bëkk ci suuf daa mu ngi dóor dóorul mu ngi dooli daa ngi dóor daa mu ngi dóor ar bi àtte na temps bi jeex na daa am daa ñuy jox ndam daa bu Texas am na ndam waaw waaw jox nañ daa ndam daa am na ndam daa am na ndam ndeysaan daa am na ndam ndeysaan ndeysaan booy euh, booy melax doomu suñu papa Mouhamed Ali la booy melax am na benn avertissement ndeysaan njaka caama ngi noonu ndeysaan may laaj ci taarix est-ce que Pape Diop Bakson mës dajeek Mouhamed Ali gars yi nee xeex nañ jël na daan na daan na laay njaka caam daan na daan na ko vite fait bien doomu gaynde gaynde na doon Pape Diop Diop boxe daan na jël bu rëy ndeysaan jël sur ma tuuti ci ni nga bëree ak booy melax ba daan waaw parce que ñun ay xale lañ te yàgg nañ liggéey ndax yàllaa di sutura booba léegi ñu ngi bëre ba suñu huitième combat huitième victoire daan nañ yeneen champion yi bokk booy melax parce que mënoon naa ni du ma ko jël parce que moom ki ko daan maa ko daan muy saa bokkal mais bëgg bëree moo tax ma jël ko mais man sama bët doo mën a fii mais day santaat yàlla nag bu baax parce que ay xale lañ nekk si ginnaaw Père Baba Diallo di liggéey mais li lu dara quoi parce que ñun ay entraînement lañ ko def parce que li ñuy daj saal moo gën a métti. jëlu silma ci ni ngeen bëree yéen ñaar bi arbitre bi sifflé. waaw bu arbitre bi sifflé damaa dos koom sànni ko moom mel faax ko muy kii ma tourné ko weñ ko ak moom ba mu tëdd. moom dafa mel ni bi ngay dal ci kawam sax yëgu ko dafa dafa gaaw de trop. parce que dama ab vivacité man 95 kilos laa. boo ma gisee nii nag 95 kilos laa. 95 kilos laa damaa souplesse. waaw mais tamit xam nga sant yooyu yëpp ay sant la. nga booy melax foo jëm. Franc laa jëm Franc si Franc laa jëm. man doomu Pikine laa. Franc mii. Franc mi daan barki Serigne Touba moom laa bëgg. waaw booy melax say morom waay Franc moom bëtu tan jéggi na. waaw melax li mu bi mu matu seconde. combat matu seconde. Franc dix combat la ma am huit combat huit victoire xaw ma nag ndax am na defar xaw ma amul defar moom laa soxla Franc lan la ma rawee. am na catégorie bi mu boo xam ne poids. laamu du catégorie Tyson 2 moo ko daan na ñaar personne parcelle. ñëwaatal feneen rek. non. ñëwaatal daan les garaaw bëgg naa. mbër bi tax ngemb laa la wax bu ma tasante yow bañ jàppante su ma ne jaaral ne noonu jaar. xaar la nga parce que ñii samay adversaire lañ su leen samalee dañuy am leen neex parce que man fere laa man doom Pikine laa du ma ragal. am na dara ma gënal pataas kuñ ci tëj sa avocat ba. Serigne man du ma ragal doomu Boston laa. doomu champion laa. su ma bëree champion laa su ma bëree du jaaw jaal ma jaal. leen supporter yi supporter Youssou Ndour yaa ngi noonu ñi ñoo jóge Géejawaay Déngel Youssou Ndour la ñu woyal Youssou Ndour a ngi noonu wuy si na ay supporteram ndeysaan mu ngi noonu dëggal xale yi ma ngay saraxa mbiskit ndeysaan ma moom Youssou Ndour ma ba tàggoo ko gën a soxla mbiskit bi Youssou Ndour a ngi koy joxe tegtal la nag la bokk xool ko ma xool kan la ci cimekaayam ko police yi bëgg koo téye ndeysaan Youssou Ndour a ngi noonu dem na combat bee ci des moom moo waree laal ak Youssou Ndour bu ndeysaan bu école de lutte Balla Gaye ma nga noonu Youssou Ndour lu muy sottee ko soow soow wala meew mu koy sottee ko ci ñett xibb fu ne la ko war a sottee ko ndeysaan Bébé Diouldé ak Youssou Ndour mbokk yi ñu ngi taxaw koo xamante ne xale la muy Mouhamed Diamond Events Mouhamed tey ñu ngi lay nuyu bis bi ban yëg-yëg nga ci am ak nan nga ko dundee. waa di leen di leen di leen fay waa Leewtoo TV ak waa Wasaare TV di leen sant bu baax waa bis bi kontaan rek ndax nga xewle ni wuusi la yombul tey nga gis stade nu mel am di jàmm yu wuusi samay xarit fan si club yi ñëw si supporters yi ñëw amateurs yi ñëw kontaan naa daf ma lu dul kontaan waaw kontaan naa trop. waaw ah. bis bi mooy sa ñaata combat nga dugg ci làmb. waaw bi mooy deuxième édition parce que première bi diggante jat li woon ak jamteeri moo amoon arène nationale bi mooy deuxième bi. bi mooy deuxième édition bi. yaa ngi ñaata ñaata ñaata édition ren ci ci saison bi. waaw pour l'instant dañ doon xaar bi passé parce que bii waaw juillet 2020 la waroon am si juillet 2020 mais moment Covid 19 bi moo taxoon kon lépp arrêté woon moo taxoon mais bi moom incha su passé fii quelques semaines nañ amaat luñ taxawal. waaw parce que tamit ñun liggéeyuñ rek si làmb dañuy bañ concentré wu suñu temps bi yëpp si làmb comme am nañ yeneen liggéey dañuy def étape par étape nànk-nànk si làmb ji rek incha allah. waaw di leen di leen di leen di leen jaajëfal yéen tamit waa Leewtoo TV ak waa Wassare TV di wax ni kontaan naa tamit si yéen trop jaajëf sama gars ndeysaan mu nga noonu di njàpp moom Youssou Ndour gis ngeen ko doomu bala Gaye la ndeysaan bu xonq ndeysaan gis nga sotteeku na ko ci bopp ba ma ngay tekki dàll yi fi mu toll nii jeex na li wolof wa dem na këng waxi mag dem dañ taali tàgg war mbaam lu waay doon jaay leen mu lamb ndeysaan ndeysaan Bébé Diouldé pareegul ma ngay léemu Youssou Ndour nee na pare na kon Bébé Diouldé ci des ndeysaan feeg waxul parewul pare na arbitre bi amul droit siffler te du siffler nee na waxul pare na mbokk yi bi siffler na combat bu nar a gaaw Bébé Diouldé Youssou Bébé Diouldé moo leen féete càmmoñ Youssou Ndour ngeen jàkkaar lool wala moo leen féete ndijoor Bébé Diouldé ñu ngi demee wet mbokk yi 27 juin 2021 à euh, stade Diom Iba Mar Diop il est Bébé Diouldé Youssou Ndour ndeysaan Youssou Ndour jiital tànk di joor wala tànk càmmoñ Bébé Diouldé jàkkaar jubal tànk càmmoñ ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Bébé Diouldé ngi déplacé Youssou Ndour a ngi mime combat bi du yomb arbitre bi nee na Bébé Diouldé Youssou Ndour ndaysaan Youssou Ndour moo la féete ndi jox Bébé Diouldé Youssou Ndour dinañ xeex ndaysaan ñoom ñaar noonu Youssou Ndour Bébé Diouldé yoon na léegi dóor benn coup daw génnaat ndaysaan Bébé Diouldé Youssou Ndour ndaysaan Bébé Diouldé dinañ xeex ñoom ñaar Bébé Diouldé dóor na Youssou Ndour doon ko remise dalul tibb na suuf raxasu moom Youssou Ndour na dóor jàpp na Youssou Ndour Bébé Diouldé jàppante nañ plaqué na ko mu bañ Youssou Ndour Bébé Diouldé Youssou Ndour a ngi jàpp ci sengoor yi Bébé Diouldé dal na ko laa ilaaha illallaah ñaari xale fu ñuy mujj Youssou Ndour Bébé Diouldé Youssou Ndour jàpp na lu mu bëgg Bébé Diouldé ndey ngeen ñoo ko ba pare di ko déglu Youssou Ndour Bébé Diouldé Youssou Ndour Bébé Diouldé ndaysaan ñaar ku ci nekk suq na sa morom ci ngeeño ndaysaan Bébé Diouldé suq na Youssou Ndour a ngi door door na berkit Bébé Diouldé bëggoon na ko kit filaas ndaysaan door ko tànk ndaysaan dooraat na beneen ci suuf fàqat na ko jaxabal mu bañ yegg nañ suuf ñoom ñaari xale yi jugaat Bébé Diouldé Youssou Ndour Bébé Diouldé Youssou Ndour ñoom ñaar jàppante nañ ba tey ñaari xale yi ku ci nekk mu ngi def lu mu mën ndaysaan fan la combat bi di mujj balaake na ko bañ na zongale Bébé Diouldé Youssou Ndour daan na ko Youssou Ndour daan na Bébé Diouldé Youssou Ndour daan na Bébé Diouldé Youssou Ndour daan na ko Youssou Ndour Youssou Ndour daan na Bébé Diouldé da ngay jox amateur yëpp di wax dañu gis beneen Youssou Ndour bu ñu xamutoon ci làmb waaw dama ñëw décidé jël si li nga moom bëre ki nga ne daan ko jël bu rëy jël ko daanee ak xeex bi cër ndax waxoon na ko bu jël waaw waaw waaw mooy loolu dama nekk inshallah rabbi saay saay saay bu ñu liggéey nga yàqal ñu waaw mais ma ah, moom laay jël sax lañu may chance kan monsieur Andoy foo jëm franc jël franc franc men barki alquran kër men bu ñëwee nga jël franc bakkan Cheikh Fadel yi daa fat gis ngeen ko mu ngi noonu mbokk yi yéen a ko gisandoo ndeysaan sama waa ji lii de yéenewu ma la ko woon yow da ay nembali nga xam ak ki cuuraay ki parfum waaye xale yi gis nga grenade yi bi mu jollee ndeysaan Cheikh Mouhamadou Fadel ba nga noonu pël nu muy nooy li xoolal pël laa ilaaha illallah Youssou wane na beneen façon ci làmb wane na xale la doomi mbër la waaye non seulement mu ngi gën a wane waat boppam ci wàllub làmb gis ngeen xeex bi mu xeex ak Bébé Diouldé gis ngeen jël bu rëy bi nga xamante ne daan na ko ñu koy félicité bu baax mbokki yi lañ leen doon dégtal di jox dig daje ba ëllëg incha allah ci wasaare làmb bàyyi ji li kàggu